salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal ziyaare ti bégee warma di jël sama nuyoo nag di ko jox sama sëriñ Baye Abdou Karim di jël di nuy sama nuyoo tamit di ko jox samay ñaari waajur ñëwaat si biir àll bi si biir Pexxe TV sama émission maa ngi fépp àndaat ak borom àll bi muy Iran Iran ziyaare naa la. Sarr maa lay sant di la gërëm di la fay di nuyu waa Sénégal di waa àdduna bi di waa Xoddu ba. Mm-hmm. di nuyu nga xamante tamit ñu ngi bitim réew. Ah, sa gars <laughs> yi sama xarit yi. waa ziyaare nañ leen. ku nekk si kaw rek. ñu ngi lay bëggee waa tey jii ma fas yéene teewaat ànd ak Iran si bi àll bi moo xam ne day rëbb moo xam lan lay def ndax saa su ne suñu ñëwee rek dañ koy bàyyi ak suñu bopp ndax moo nee nañ boroom àll moom miin àll bi Iran tey lan nga ñëw nar a wan si àll bi. tey dama lay eggale sama émission. émission ban. dambal bi dama lay won doomu dambal tey mos ngaa gis doomu dambal sax yow. waaw kay ndax waaw jarul woon nga ma koy yàqamti parce que nee woon naa la bee paase moo fi ñëwee man la Iran bi nga ni ma dinaa la woon lay mel boo fi ñëwaatee naa la ko woon kon am nga ko ndax nee woon nga dafa manqué. xobu dambal ngi. Ah, bii mooy xob bi. waaw. ok naa la woon itam doomu dambal. mu ngi sama doom bi mu ngi tool bi fee ma la nekkoon di liggéey mu sool tool tomate fa ko bàyyi. kon xam naa ne ñu dugg ci biir àll bi nga wan ni kandem walla dambal ah Ira waaw ñu dem nga wan ñu bi tey li fi nekk àll bi tey ma de am naa ñaar dambal yi ngàndumal la ko ah ok tey danga kaa am tey Ira kon ñu duggaat si biir comme nee nga ma tey danga may won moom garabu dambal bi ni muy mel boo xamante kenn laalagu ko kenn daggagu ko laal man doomu dambal bu bees sàq ah, uh-huh. wala doom bi ni muy mel su ma tee ni muy mel. ni muy mel waaw. kon daal garab gi commencé waat na sax wala feneen nga ko gisee parce que dafa nee nga woon garab gi dafa manqué. wax naa maa xam xam àll bi moo tax. boo ah, maa ngi naan la Iran borom àll bi yaa moom àll bi. damaa dem beneen secteur laa ko wute. mais foofu sax damaa dem sax bariw fa. bariw fa fexe naa ba lijjanti fa ñaari doom yi am fayda pour. waa Iran jóge nañ si beneen tool bi di démarche beneen tool bi pour nga won ma li nga xamante ne fa nga ko teg muy dambal bi. waaw. waaw mm-hmm. ne kon fala bàyyi dambal bi nga beet moom. Mm-hmm. kan kan ma jëli ko. mais Iran tamit na bëgg nga jaxatu de. jaxatu moo may faj. moo lay faj. Mm. jaxatu bi isa gënul ay sa ay dambal. jaxatu meen mi. waaw rek. ñoom ñoo. gars yi xamul rek mais jaxatu isa gënul ay ay dambal. kon yaakaar naa suñu eggalee suñu émission bi dambal bi ba pare dina ñëw si jaxatu comme yaakaar naa ne jaxatu bi ngee nga moo gën a aay dambal bi kon am nañ jaxatu bi la si nekk ñu dem. saa sañ dem Iran kon yow dafa mel ni àll bi da nga fee bari ay tool de. non non yëpp benn tool bi yaat benn tool rek. waaw ah. ah, partie bi dama fee dem. Iran fii nii daa mel ni mosuma fee ñëw ndax xoolal tuuti de sonn ma daanu fii nii. waaw ah, booy bi doo ko defar. waaw ni ñu koy door defar moo tax. dañoo dindi ñax yi fi nekkoon moo tax. xam naa ne moom fi bés bu ma daanoo moom. boobu mooy nag bu jeex bi nag. lii lan la ni lii ngay yëkkati ni li ma yëkkati nii. mooy dambal giri xam fu giri nekk waaye nekk dambal ngi. déedéet. la tax ñu ñëw ba si sa tool bi nga taxaw. laa tegoon dambal yi ma la doon wax. Mhm. boo déggee ñu wax dambal lii mooy dambal. ah ok lii dambal. doomu dambal ngi ñaar téeméer ni lii mooy dambal. lii diis na de. dambal ngi. léegi man lu ma ci jaaxal yow bii mooy dambal bi nga wax. Ah. léegi yow bi nga wane woon ak bii du benn. boobu dafa wow. Mhm. bu wow bi la. Mhm. sa dama ko daggoon. Mhm. bii bu nu lumu la. mais Ira lu tax nga force ñu si lii kon yaakaar naa ne bépp ba mu génnee ba léegi yaa ngi siy gis ay nit ñuy ñëw si yow lu si mel na ni xale yu góor yi yi nga xamante ne tey jii li nga koy waxee rek seen affaire wu ngóor affaire yooyu noonu. mooy loolu. non boo la boo boo waxee garab buy faj. bu ko nit mhm. xamee du ñàkk kay ku la ko laaj. Mhm. foog foog nit laaj la ko. mais gars yi daal ñu ngi siy ñëw te ñu ngi siy jox tamit ñu ngi lay woo ñu ngi siy gis seen bopp. ah ñoo ma koy laaj bu baax moom sant yàlla bu baax. Mhm. waaw nit ñi bëgg nañ ko. xam nañ ko commencé nañ koy commencé xam amuñu dañoo xamuloon garabu dambal. mais léegi ñu ngi commencé xam dambal li mooy dambal. mais léegi dambal boobu am waaw ah, dafa diis bii dafa diis trop. lii daal mooy dambal. mais Iran nga yaakaar na ne dambal bi nga génnee nga génnee ni gars yi di ko gis est-ce que suulul li nga xamante ne mooy méttitu ndigg bi en si fas yi dambal ne garabu ndigg bi metti bu sa ndigg di metti parce que gars yi li moom instant bi laajatuñu ndigg buy metti ndigg buy metti fas bi fas bi dambal bi dambal bi rek la ñuy wax waaw xëy na sa ndigg daf mettiwul sa ndigg bu mettee nga laaj garabu ndigg bi metti mais léegi dama la laaj na xam ni ñuy ñëwee fii nii nii nii nii si dambal bi nii nii nii di la ko laaj est-ce que ñu doon ñëw si fas bi ñu ngi ñëw ba léegi garab bu nekk bokkul yow bu fekkee yow da ngaa sox am problème laajte garab dambal mhm. garab dambal ngay laajte su fekkee da ngaa am problème laajte garab ndigg garab ndigg ngay laajte mais tamit lépp mu ngi ci biir léegi moo tax ma ne la ba xam ñu ngi jaxasoo wala instant bii bii moo gën a dox ah nit ki daal ñu ngi may laaj ñu ngi may laaj dambal bi ñu ngi may laaj garabu ndigg bi moom da nga siy jël temps yi seen lii fixé ko na ku si nekk danaa wax jox ñu numéro Iran jox sama ndigg dafay met sama ndigg mais instant bi amul lenn lu ñuy laaj lu dul garabu dambal bi. la fekk tombul borom ndigg luy métti rek mais borom ndigg bi métti lu laaj dambal. ndigg lu mhm. métti lay laaj mais ku bëgg affaire dambal mooy laaj garabu dambal. mais tey ñii damaa bëgg nga wax ma nag nga njëriñu dambal dëgg dëgg ka il nekk si dambal defal lépp lépp loo xamante ne tey dafay faj. dambal. Mhm. du faj ay bagage kesu comme ni ko gars di waxee. nga mhm. dambal day faj ay ndox siti mhm. dambal day faj hémorroïde. hémorroïde day faj hémorroïde day day ndoxu siti ak yeneen yoo xam ne dambal da koy faj moom dambal. mais léegi hémorroïde bi ak ndoxu siti bi nu ngi koy fajee bokk la ñi nga xamante ne tey amuñu ngóora nuñ koy defee. bokkul non bokkul de. bu fekkee da a bëgg am ans moom bu la ko joxee moom yow bëgg am ans li ma la mayoon <laughs> waa Ira yaa ngi koy reetaan loo sax waa li ma mayoon moom jël naa ko moom bu dëgg yàlla maa ngi koy essayé mais tamit sama mbokku jigéen yi ak sama mbokku jigéen yi ñi ngi laaj li nga xamante ne tey ñi nga xamante ne dañoo ñàkk wér ak ñi ñàkk ans loolu moom li nga ma joxoon maa ngi koy utilise dambal la koy dambal la. Uh-huh. bii rek même tur turam. waaw ah. wala ni nga ma gisee woon bu njëkk ba ak léegi benn la wala du benn. non du xool bu baax sax du la xool ay bu baax waa Iran xam nga faj dafa am loo xamante ne foog ngay topp règle faj. lu si nekk nga wax ko ni nga koy utiliser ba feebar boobu noonu wala li nga bëggoon a faj mu daal di wér si yow si garab bi buñ la ko joxee mais tamit comme ne neen damal day faj la naa si def lii naa si def lii mais da nga ko soo si soo ko utiliser par heure la wala saa su ne saa yoo ko sentir da nga koy def. dambal bu dee affaire góor la suba teel nga koy def. Mm-hmm. ak guddi. suba teel ñaari yoon si jour bi. waaw ñaari yoon si bi. deux fois si jour bi. suba ak guddi nga koy def. nga koy def. bu fekkee ne ni góor la nee nga suba ak guddi la koy def ñaari yoon si jour bi kon bu deux fois si jour bi mais bu fekkee ne ni loolu nan la koy utiliser si moom. ki la ko laaj. Mm-hmm. beneen loolu la soxla. waaw fi mu koy def. Mm-hmm. xam na ko bu baax da koy xëcc tàllal ko bu baax di ko def. bu ñëwee da koy xëcc tàllal ko bu baax. di ko si def. kon ça di dire que su ma la déggee moom su ñëwee di nga ko expliquer ni mu koy defee parce que nee Sénégal lañ nekk te nit ñi dañuy laaj te dañuy bëgg a xam ñëpp a sob ndax kuy faju tamit foog nga sob soo déggee liy faj tamit nga am feebar boobu foog laaj yi xóot xóot boo xamante ne ñoom dinañ si mën a jariñu ndax ñëw faju waaw loolu am na mais mm-hmm. man boo la ko ñëwee jox la naa wax lii nga koy def mm-hmm. heure suba teel nga koy def ak mm-hmm. guddi mais xam naa ne moom dambal moom am na solo moom am na dambal nit ñi dañ koy yéex a xam. Mhm. léegi ñu ngi koy commencé xam sax. ñu koy commencé xam moo tax nit ñi la si. garab bi sax si boppam moo commencé raar. garab gi waaw parce que bi ma fi ñëwee da nga ne moon garab bi dafa manqué. dafa manqué. Mhm. mais xam nga dafaa xam àll bi. waaw fexe naa lijjante bu am mais bu doon ñaari doomu dambal sax génne naa ko fa. Mhm. li mooy dambal waaw mi ngi nii moom man moom maa ngi koy doog a gis moom. ndax yaakaar naa ne bi ñu fi njëkkoon woon lu ndaw la. te dafa woo woon koomu doom bi doom bi buy. buy dundu yomb yomb. yomb bi dem si cere waaw mooy yi si tam xarit yeeg yooyu waaw kay day moom man sax moom laa ko tegoon bii nii koy lekk ma ko dammoon léegi mu indiwoon ki naa ko damm comme ni may lekk jaxatu bii ñooy lekkee loolu nii nii moo tax boobu léegi moom boo koy lekkee noonu lan lay jariñ si yow da lay faj da lay faj kii nga li muy faj kii am na ñoo xam ne ñun ñooñu ko gën a xam mhm. li da ngeen di door a xam ay kii rek mais garab yi man bu ma nekkee sa àll bi gën a day def xam ne day def lii mhm. yàgg na ba affaire yi sax xewagul mhm. mais xam naa ne saa su ne ñu ngi si moroom si góor ñi si góor ñi mais tamit jigéen ñi tamit am nañ si wàll ndax boobu ba léegi ñun tamit ñu ngi woo waaw di laajte tamit nan lay génnee ans di génnee ween ni ko expliquer si góor ñi ba mu leer bëgg nañ ñun jigéen ñi nga expliquer ko si ñun ba mu leer ndax nee nga góor da koy jël suba ak ngoon jigéen nan la ko war a mën a utiliser. jigéen buy tëdd la koy diw si ans la koy diw ci ansi. ak pegg ween yi yëkkati ween yi suuf diw ko ci. ko ci ween yi ci suuf diw ko ci ak ci ansi mais moom benn jour ci jour bi benn yoon la koy def wala daf def deux fois. buy tëdd. buy tëdd saa si gu jigéen ñi moom suñuy tëdd rek lañ koy def seen suufu ween yi mu yëkkati seen ween yi ak seen ansi ah ok waaw loolu daf may neex tax parce que ba may dem keroog may nga ma si ma yóbbaale te lii mu leeree woon nii leereewul woon noonu si man. waaw léegi tey doomu dambal bi. Mm-hmm. amoon doomu dambal bi moo tax xam boo gisee sax ñu sori si waxu dambal bi ni tey mhm. tey damaa yor dambal bi waaw ba pare ñu ma doon laaj doomu dambal nu muy mel ak def garab kii loolu moo tax ma def ma defaat la émission mu ngi nii yaakaar naa ne ku ko bëgg a xam ak ku ko gis nu mu mel ku bëgg a gis nu mu mel mi ngi nii dara du ko dara nëbbatu si te kenn dootu ko laam laamee yaakaar naa ni yéen ñi nga xamante ne sax instant yéen a ngi topp Pexxe TV di ñu laaj émission bi nga xamante ne mooy maa ngi fépp sama émission ak Iran si biir àll bi chaque instant ngeen laaj ñu nan lay demee nan lay demee kon yaakaar naa ni yéen ñi nga xamante ne yéen ak ñuy seetaan bis boo leen ko seetaanee dingeen ngeen si jëlee xam-xam te di ngeen gën a ñëw si Iran en ah, Iran incha allah yàlla defu leen jàmm. xam nga dafa bariwul sax mais xam nga doomi si biir. Mm-hmm. même boo ko yëyee sax day yokk ngóoru doom yooyu si biir. doom nga koy yëy boo ko diggee nit naan dañ lay naan utal ma ay doomu dambal utal ma ay doomu. te uh-huh. bi si biir boo ko amoon. di ko mm-hmm. yëy day yokk ngóoru. ah doy na waar ndax yaakaar naa ne. tey tamit xam nga da ngaa dégg tur bi. tur la mm-hmm. olof a ko wax dambal. tur la yow uh-huh. waaw. mais dañuy dégg bi jaaxal leen trop te loolu li nga ni lii téye tur bi moo ko tudd. waaw noonu la du woon moom garab gi tudd bi mooy dambal kon duñ ko wax aha moo tax ñu wax ko waaye Iran booba léegi ñu ngi ci euh, garabu dambal bi garabu dambal bi yaakaar naa ne est-ce que bu dul garabu dambal si góor a góor am na beneen garab bu nga xamante ne tey yaa ngi ci biir àll bi war na koo mën a faj am na ay garab yu faj ay garabu ngóoro mais dañ faa mhm. tooloogul bu ñu fa tooloo émission par émission ñu egg fa mhm. gis nga dambal bii si boppam waaw am na loo xam ne boo ko defaree mhm. am na loo xam ne boo ko defaree waaw taas taas jigéen bu am taas taas jigéen bu am taas taas waaw da koy dindi dañ koy defar si doomu dambal bii ngay gis nii doomu dambal bii dañ ko siy defar ah sama mbokk jigéen ñi dégg ngeen Iran tey bu mu leen indiwaat indiloon na leen aas indiloon na li nga xamante ne mooy ween tey nag nee na am na loo xamante ne tâche boo xamante ne mu ngi si jigéen bépp tâche bu mu mënti nekk wala. taas sa yaram bu amee ay taas nii. Mhm. ba mu rafet. Ah, ba mu kon yaakaar naa ne li am na lu nekk si biir loo xamante ne tey ji waroo ñu ko war a mën a wax ñu xam ko wala yow yaa ko war a a dencal sa bopp. non maa koy dencal sa bopp bu ma ko nit laajee ma defaral ko jox ko. nga jox ko ko kon sama mbokku jigéen ñi nga xamante ne da am tâche muy si kanam muy si tànk muy si loxo Iran nee na soo leen ñëwee ba si moom dina leen wax nañ leen koy utiliser ba seen tâche dañ ndax yaakaar naa ne man jigéen laa yéen man mii téye taxaw fii xam nga ne damay dox ci affaire yu nekk ku ci nekk xam nga li sa moroomu jigéen li ci yaramam tey jii soo leen ñëwee ndax dañuy gis ci télé yi Iran ak ci YouTube yeeg ak ci TikTok yeeg da ngay gis ñu naan jigéen bu am taas génnee soo jëndee lii soo jëndee lii mu dindi ko soo jëndee nekkate daal garab dafa nëbbatu en tout cas daal mën naa sa dara lii. Mhm. garab dambal bii. waaw am na noo koy defaree te mu dindi taas comme ni ñaan day yokku ngóor ak day def nii ak am na noo koy defaree. Mhm. mu génn taas ni ñu koy defaree man xam naa ko man mais loolu xam naa ko man. Iran boobu ba léegi saa su ne rek ñu ngi lay laaj yaa ngi ñuy génne génneewaat nga beneen xam-xam muy jigéen ñi dégg ngeen si lu baax a baax lu ñu leen si wax nee naa leen lépp si biir pexe TV lay reeree ndax pexe TV moom lu la waay loola jaaxal rek si Iran rek bis bu génnee rek soo see soo wootee pexe TV rek dinañ la jox numéro Iran bi nga xamante ne soo ñëwee si Iran li nga bëgg Iran dina la ko fayal. Ah. waaw itam fu giri waxal ma ko li may dambal. giri waaw giree dambal moo ngi nii Iran yaakaar naa ne émission bi léegi mu jeex léegi jeex na ba pare yaakaar naa ne ah, ñëpp ñu doon leerlu si yëfi dambal tey beneen génn naa na si ñun jigéen ñi nga xamante ne dañoo am ay tâche. dambal bi li may wax nii. Mm-hmm. dama see cof rek. xas wa am na lu mu mën. xas bi. reen dambal. am na mhm. lu mu mën. yooyu mhm. yëpp mais dama la wax rek si kii rek sa dama mais léegi comme reen ba reen bi am na lu mu mën xas bi am na lu mu mën yaakaar naa ne ñi nga xamante ne dañ lay béggee di la seetaan su beneen yoonee di nga leen wax xas bi ak euh, lu si nekk rek lu muy faj waaw buñ fa tolloo buñ si tolloo bi soobee yàlla ah. waa Iran yaakaar naa ne li nga ma wax lépp si garabu dambal bi leer na mais damaa bëgg ñu delluwaat fu ñu nekkoon comme nee nga garabu dambal bi dañ koy lekk nan lañ koy lekkee bëgg naa xam bu ñorul sax dama koy lekk noonu man nii comme li ngay lekk jaxatu bu ma daggal ñam ko ma def si ñamal tey yow man waaw ah, ñam naa bu ne waaye bii moom man lii nu ma koy dayee dayoo ma ko dara Iran ñu dem dambal day faj non garaaw man comme li nga ma mayoon rek ma koy utiliser rek ndox sama mbokk jigéen yi daal maa ngi leen di woo ndox siti yeeg a ah, Iran waaw sama mbokk jigéen yi daal ku am man daal instant bi ku nekk ki nga àppoo yow yaa àppoo oh, góor ñi man ma àppoo jigéen ñi ah, ragal féete day xañe wërsëg kon mu ngi nii si Iran waaw mu jox leen li ngeen xamante ne tey jii képp ku ñàkkoon ween di nga ko am képp ku bëggoon aas di nga ko am. kon Iran garaw dambal dañ koy lekk ni dañ koy lekk nii kay. Ah, na waar. kii dambal. ok dellu si waat si biir tool bi tool bi ñu jógee woon. fi nga ko mën a daggee ndax da ko bàyyi woon fi nga xamante ne fa ngay bayee sa tambaate bi fa lañ jógee. waaw. Mhm. léegi nag kan ma daggal la wala dambal ni koy. daggee ni koy lekkee. <laughs> baax na. ah pexe ak mbaw pexe dañoo génnoon bàyyi la fi. mooy gardien bi. waa Iran dellusiwaat nañ si tool bi. jaajëf ma yàlla maaraam sant yàlla bu baax. waa Iran nañ si tool bi nga xamante ni fi lañ jóge woon. nga ñuy wax saa su nekk rek ne beneen bi fi nga nekkoon mooy sa beneen tool bi fa nga doon bayee tamaate fa nga bàyyi woon lii ndax danga nekkoon foofu di bay léegi jógee nañ foofu nga ne danga ñuy wan nan lañuy daggee dambal ak nan lañ koy lekkee ñu xool nan lañ koy lekkee ak lan moo nekk ci bi nu mu mel dambal mm-hmm. man comme ni may lekk jaxtu waaw di ko lekk yëpp noonu laa koy lekkee noonu ngay lekkee dambal brit yàgg naa ko wax gris brit cocktail ah kon baax na nañ leen xaar Iran ñu xool nan nu muy mel si biir mi ngi koy dagg ah. Eh, daa dagg benn bi mu dagg ah mu wadd si suuf mais Iran lii nii lay mel. sombal ok lii waa. booy faj kii. mooy faj. bii nii. Mhm. boo ko def ree mooy faj po. bu fekkee yow say yaram dafa may taas. moom moo koy dindi mhm. mais lii si biir nii dafay nduróo li nga xamante ni euh, mooy euh, euh, kii jaxatu. doomu jaxatu nga wax. waaw. doomu naajoog doomu neweeg doomu yooyu doomu kii rek la mu ngi nii. Mhm. dañ koy rek kii mooy dambal. kii mooy dambal. léegi lii nii boo ko lekkee nii lan la lay jariñ kii day rey ay saan sax day rey saan li muy faj bari kon kay yaakaar naa ne ñoom ñi nga xamante ne dañuy yokk ngóora ñii di yokk ay aas ak lii est-ce que lekk bi gënul gaaw non bii gis nga bii comme nii nii nii nii mais dafa xaw a nduróog tamit comme koombre waaw moom laa doom bi dafa jël lépp bii nii. Uh-huh. bii nii nii ni ñu koy lekk nii baax na. si bur yokk ngóora. bii paa nga utiliser ko ak leneen. ko utiliser ak kon boobu est-ce amul dagg bu doy nii rek. moo gën a gaaw. waaw boobu bii bii doo amee dagg bu doy nii. <laughs> Ah. avant ngay dem combat nga jël ko bii. kon moo gën a efficace. waaw bii dama ko bañoon wax rek mais yaa tax ma wax ko sax. Ah. giri moom may dem dinaa ko si yóbbaale mu lekk si. Ah. léegi waxuma loolu comme ni nga koy lekkee nii tamit jigéen ñi mën nañ ko lekke seen i aas génn ak seen ween comme ni muy fajee si góor. non dama am ñoo xam dañoo bëgg a yokk ngóor a laax comme pour ñu may laaj. sol waaw mais dama laaj yàlla ans tamit ak ween yi tamit. ku nekk ak li lay yitteel eh, da nga koy diw waaw ak li ngay lekk. bokkul déedéet bii moom bu fekkee ne. góor bu naan damay bëgg yokk ngóor affaire yooyu damaa bëgg sama mhm. kii mhm. bii da koy def xam nga la moo tax du ma ko digee mhm. doom bi laalul am moo tax moo tax ah. doo ko am moo tax nga kon mu ñu ñëw nga defaral leen li nga leen defal ñu yóbbu moo gën a yàgg si ñoom mais bii bii doom bi dafa jafe waaw kay lii boog amoon waaw day yokk ngóor lii rek boog amoon uh-huh. bii doom bi ñorul bi nii nga uh-huh. jàpp ko nii rek baaje tëdd nalaw rek nga lekk si bu am fay la uh-huh. waaw gis ngeen Iran saa ne rek ak fu muy génnee rek nee na balaa nga koo lekk kon su may dem nga mayaale ma sama yóbbaale ko sama góor muy giri waa gis ngeen loolu ma leen si biir Pexxe TV man ak Iran si biir àll bi Iran tey lan ngay tëjee. naa sa mbokka maa yëpp di nuyu sama xarit di nuyu sama boy yi. gis naa mm. nuyu sama boy bi ay pëm te yaa koy tëj ma waa gis ngeen ba suñu mbokku kaw maan yi bàyyiwuñu kenn ah? Iran bégee na ñëpp man tamit bégee naa ñëpp. bàyyiwuñu kenn yaakaar naa ne nee naa leen lu leen am lu leen jaaxal rek luy nëbbatu ci Iran rek soo leen seetaanee Pexxe TV Iran dina leen indi lépp ci beneen émission ak Iran di leen wax. lan la kii bi toll woon. woon na moom. waaw am na kii bi beneen waaye daaw ñu gis may lekk sax. dambal waaw léegi tey jax lañu gis tey dambal la tey dambal ngay lekk man ak Iran yaakaar naa ne fii lay jeexee tey jii Iran indil nañu li nga xamante ne mooy garabu dambal ah, expliqué na si expliqué na si li nga xamante ne tey jii su ko góor jëlee ni ñu koy utiliser wax na si sax ba wax li nga xamante ne tey jigéen bu am taas te loolu yëpp xamuñu ko si woon Iran wax na ko si ni ko jigéen di utiliser benn yoon la koy utiliser góor moo koy utiliser ñaari yoon lu si nekk rek boo leen seetaanee biir Pexxe TV lépp dina leer dina leer seeni nopp Iran tamit maa ngi gis boobu ba léegi jaxat kii bi nga ah, jaxatu dambal bi nga lekk nii li nga dagg lekk nga ba mu jeex bi nga daan lekk ngay bi jaxatu laa ko tijjee. Mm-hmm. te ñu ko la man rek comme man ni may lekk yi dama koy da ngaa gars yi mosu ñoo gis may lekk ay. dambal ak yi ñu doon lekk dambal moom moom jaxatu rek nga daan lekk pour wan la dañ koy lekk xool. Mm-hmm. kon tey du jaxatu mais jaxatu nga ibbee woon mais dambal nga ko tëjee dambal koy tëj. ok ah, noonu la. kon yaakaar naa ne bokk góor ñi ak mbokku jigéen ñi gaaw leen ñëw balaa dambal bi di jeex ah Iran. même garab bopp yu métti am na doom yu nekk fii. Uh-huh. ñi am bopp yu métti boo ko joxee da nga koy musooroo. waaw boo musooroo yow day dindi bopp yu métti. day dindi bopp buy métti. mais man tamit maa ngi tëj xam naa ne ba beneen yoon ak beneen émission. man ak ah. Iran ndax ñëw tey jii si dambal la ñu indiloon. dama lay wanaat benn po ma defaroon dambal bi. dambal bi tey bii daal di jox nga yóbbu moom bu am fay la. saa te yaa moom. waaye nag si sedd gii xam fu gii nekk nag moom. kon ba nga ma mayoon ak bii du benn da nga ma doon fooxal non fooxaluma la lu ndaw laa bi nga ma mayoon dafa ndaw waa gis ngeen de mi ngi nii de keroog mayoon nañ ma si pot bu tuuti kon ku bëgg dambal rek boo ñëwee fii ina jox la ko ñun suñu mbokk jigéen ñi war a defar seeni aas ak seeni ween ak seeni taas taas su yaram fii laay tëjee sama émission may naa ko jigéen ñi sama mbokk jigéen ñëpp ma kenn ba benn émission